mais ni sur le plan politique je suis tout à fait d'accord avec Albert l'opposition ne joue pas sa partition toute l'opposition parce qu'il y a des questions yoo xam ne c'est pas des candidatures isolées ñoo koy jël en charge c'est des questions de démocratie d'approfondissement de la démocratie au-delà même des candidats c'est le peuple sénégalais moo ci war si def ko mbiru boppam moment bi ñu toll ak quelque jour de l'ouverture de la campagne xamoo kan mooy candidat kan moo dul candidat question parrainage bi ni ñu ko songi aussi mais même ñi jàll dafa war a nekk seen affaire mhm. parce que du ñoom rek ñoo ci am trop trop léegi donc li Khalifa Sall doon wax naan naa bokk rek ñoom ñu ngi ci même dynamique bi il faut tout pour bokk rek dem ba ay union européenne du nonc mais du seen affaire ñoom kese mhm. affaire opposition bi la mhm. donc réew noonu lay tuddee la nga xam ne ñépp ko bokk ñëpp ko war a toog saytoo ko xool naka lañ koy indee naka lañ koy saafara. Hmm. mais li ci xew mënul nekk et man je ne suis pas informaticien du ma informaticien mais gëmuma ni jusqu'à preuve du contraire que y a neuf cent électeurs yu newul ci fichier. neuf cent mille. neuf ko bien que du ma informaticien keroog maa ngi ciy jéem waxtaan ak euh, kenn ko xam-xamam màcc ci mbir yooyu mu ne ma cher attention. yow mën nga tudd Cheikh Gueye mais caractère yi ñu bind sa tur ci fichier bi boo changé caractère yi wala nga def double clic mën na indi problème politique bu ko defee yow loolu nga indi tour bu bees bi nga indi bokkul ak tur bi nag ci fichier bi boo demee ci code bi daa gis tour hmm. mais tour ni nga ko bind ci kii bi donc ay considération yu mel noonu donc c'est pour dire hmm. que y a à manger à boire sur cette question hmm. loolu moo war tax sax mbir mi comme ni ñuy wax réew dañ ko war a péncoo bu fekkee ñun ñoo bokk langue vraiment les problème de détail la dañ ko war dépasser xool lan mooy suñu mbébét ñun opposition bi ñu toyoo. dem essentiel aller vers l'essentiel. d'ailleurs ñëw na ci léegi comment opposition bi bëgg tirer ci candidat opposition ndax war na jàll wala warul jàll. mais dans pays sommes-nous